fédération pour cette indépendance. lu waral jubilé bi bi. ñun asalaamaaleykum Sénégal d'abord euh, ñu ngi gërëm patriote yëpp di kontaan ci victoire bi Ousmane Sonko lépp lum ñu wax gis. xamante ne ni Barthélemy Diaz foofu la voté. fii la voté mais bureau yëpp ñun ñoo ko gagné. bureau yëpp Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko gagné. di gërëm sénégalais yi voté. Ousmane Sonko. nañ dem. fii Sonko rek ku yëngal ñu dakk leew Sonko rek Sonko rek la ñuy doomu Sénégal yëpp Sonko rek la ñuy doomu. premier tour képp ku yàngal deuxième tour ñu ngi si xeex tey la ko yàlla sottil yàlla defal jàmm Diomaye Faye président ci palais bi. léegi xam lu ñu dem ñoo koy réew mi lu ñu waa yoreel dañu koy delloo lu ñu waa yoreel dañu ko jox. Eh, sant sant yàlla vive le peuple sénégalais vive Diomaye. leer na nañ dans tous les bureaux de vote on a gagné alhamdulilah rabbi alamin coow jeex na liggéey réew mi sant yàlla vive le changement vive le peuple sénégalais. merci beaucoup nag lenn rek la ñuy xaar ci lenn rek la ñuy xaar mooy na woo booy bi félicité ko wala booy bu woo ko ne mahaza lan la nu mu demee ko woo rek félicité ko moo gën a rafet moo gën Sénégal ñun fépp la ñuy gagné fii sama commune fii na mu fiy pour 100 loolu dafa naa ak sama gars yi fee waa Pire sama gars yi samay gars yi waxoon naa la ko asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di man lu ma si gën a neex mooy le président Ousmane Sonko dafa dafa sacrifié boppam pour Sénégal te moom lu gën a doy waar si moom mooy nekk moruñu gën a gore uh-huh. parce que nit ku gore mooy man du ma négocier sama ginaaw peuple kon yàlla na ko yàlla fay lu mu bugg yàlla na ko yàlla defal kontaan si moom nag ak Bassirou Diomaye Faye man sama nijaay yaaram yaaram Bassirou Diomaye yaaram rogarab din <laughs> non benn affaire la wax dañoo ne jeunesse bi amuñu carte d'identité ngeen ne duñu fubal mhm. mu indi la remplaçant yi remplaçant yi ñëw football la avec coalition Yewwi Askan Wi ñu lampi lampi lampi lampi yu métti ñu ñëw élection présidentielle nga ne ndaanaan bi titulaire bi mi président bi Ousmane Sonko du bokku Prost du bokku Prost indi war la encore deuxième remplaçant ñu koy wooyee Jules Bellingham mi suñu cinquième président Bassirou Diomaye Diakhar Faye cinquième président Jules Bellingham jërëjëf dëgg rek a dul fekk dëgg rek mooy waa taalal waaw. yéen internet Sénégal yi. moom vraiment. résultat yi génnagul. joxe gu résultat définitif. waaye mel na ni ñoom li ñu sentir mooy victoire sénégalais yëpp génn nañ ñun sonko rek lañuy ñun sonko rek lañuy topp soxna ñun sonko ñun sant nañ yàlla bu baax sant nañ yàlla bu mi yëpp dem na suñu toll nii teraanga rek. suulee ko Macky dee na. mag Ibrahima Dramé mag dañoo sonn si mag yi mag sonal nañu final nañu tëral suñu xëj ñu jàmm xëj ñu salaam sonal mi réew bul bul fàtte wax ne. indépendance indépendance bi ni wax. tey jii lañ ko ko gën a confirmer. musu fi am fii Sénégal. wane nañ seen bopp waaw xam ne li fi amoon lépp loolu lu ñu fàtte aujourd'hui nag ñun suñu avenir ñoo koy téye suñu bopp liggéey Sénégal Sénégal jëm ca kaw duñu duñu naw di benn réew tey jii grand moo waral tey loo xam ne dañ Macky Sall bañu ñu ko la ñu bañ ndax Macky Sall dañu final wari nañ Diomaye rek Diomaye rek wala ba ah, am koy dalal mbégte rek barki Serigne Touba Mbacké dañoo bëgg maanaam ñu benn Sénégal bu émergent Sénégal bu émergent la ñu bëgg moo tax tey les jeunes sont sortis massivement pour sanctionner le gars dans les urnes ñun suñu ëllëg la ñuy xeex ak ëllëgu ndaw yi Sénégal fa mu jëm kanam soxla ñu ay gorom bi ak ay sàcc ñun Sonko rek la ñu gëm ak Diomaye mais nag attendez attendez attendez attendez attendez attendez attendez lenn rek laay dénk Ousmane Sonko ay jeunes yu bëri dee nañ fi ñii ñu tëj leen ñeneen ñi am na ñoo xamante ne seen famille boo bëgg leen gisaguñ leen leen laa laa bëgg dénk Sonko mooy lan Sonko bu mu war nation bi lu mu diggeek ñun yëpp na ko def loolu la ñu bëgg projet bi foofu mu teg ko ci yoon ñun soxla ñu leneen c'est pas sa personne qui nous intéresse ou bien la personne de Diomaye c'est le projet qui nous intéresse pour un Sénégal émergent un une Afrique émergente loolu la ñu bëgg Sonko nañu jàppale wasalaam convoyé fi nekk bari si Bamba kontaan ñun ñëpp dañuy si suñu président Bassirou Diomaye Faye ñu koy ñaanal rek say jàmm. Sonko la ñu bëgg. Sonko la ñu topp suba la ko nañ ndam incha allah neexee na yen bi oyof moom ñun loolu lañ bëgg yen bi oyof tooy Macky Sall nañu abal soxlaatuñ ko. kontaan nañ vraiment kontaan nañ wax dëgg fa yàlla suñu xol dafa sedd Sonko alhamdulilah li ñu wax nag nañ ñu jàppale rek sonk rek lañuy ñuy wër moom la ñuy topp toppuñ keneen. loo koy yóbbante loo leen koy. li koy yóbbante mooy li koy xaar dafa bari na toog rek ñu doxal ko bu mu fayantoo bu topp dara ñu liggéey incha allahu rabbi kontaan nañ jaajëf. dañoo xam ne woote ji ndogu civil nii ba faja ñun Sonko rek la ñuy topp ak Diomaye waaw yàlla moom def na changement Sénégal si Jures moo ko yor te dëgg xam lu lu ñaan dëgg dëgg moo tey senegal yëpp jug nañ ci jàppale seen doom incha allah Sénégal jërëjëf Sénégal jërëjëf Casamance jërëjëf. moo ne ñun la fañu dañuy war a faju ñun la fañu dañuy faju ñun la fañu dañuy faju bien sûr. appareil daa cher loolu lañ ko laaj. appareil dafa cher. nañ gën a yombalal appareil ak dund gi waaye jeune lañ ay xale lañ bu fi deful lu yoon day dem comme ni demee nii. yóbbante bi àgg na. lu àgg na. lu waay wax bu duggee Sénégal am. ñu nii taxawal nii wala dafa xaw a dégg Dubaï. appareil dafa cher. boo dafa cher. boo amul ay millions doo ñun moto lañ gëm. appareil bi 3 millions lay jar Macky Sall doomu xaram doo ko sol 3 millions. Sonko neel Sonko na ko bu jëree 1 koy jënd. ne ko gën a wàññi. ay lafañ lañ mais ay lafañ yu am jom lañ. ay patriote lañ. baax na baax na dañoo bég barki sëñ Bamba Baye Sonko lim ñu def. Kër Masar lañ jógee ba fii. billaay wallaay taalaay ñun lii suñu ndam la Baye suñu victoire la lii dañ ko barki sëñ Bamba dañ ko. naa bëgg Sonko. Baye. victoire bi dafa neex dafa leer moo waral xoolal ñun ñëpp ñu jóg teel a sibile balaa waa ji di lëbëj carte gi xam nañ lépp teel a sibile balaa waa ji di lëbëj carte gi xam nañ lépp